mbokk yi kii dóor moom moom mën kii saaga waaye kii saaga di dóore moom moom mën ñëpp diggante yeewi askan wi ak nguurug Sénégal mi ngay tàmbalee neex nag président Macky Sall ci Walf Quotidien ginnaaw jëf ak kàddu yi yi waa yeewi askan wi yëkkati ne élection mën naa bañ am fii ci réew di Sénégal bu dee ni Ousmane Sonko ak liste nationale bu yeewi bokk ñu ci yooyu la élection élection du amee fii ci réew di Sénégal kàddu yooyu la waa ku jege yëkkati président Macky Sall tontu na ca tubaab ya ci France 24 ak RFI président ne ay élection élection dina am fii ci réew di Sénégal te li ci kanam raw li gët ci yéenekaay bi di bi di La Tribune mu ne yi dina am ci waxtu wanu ko jàpp mu ne liste bu respecté wu lii di parité boobu la liste mënta dem ci ay élection mu ne saa su amee ab décision boo xam ne neexul waa opposition bi rek ñu ne adduna day tukki Macky ne loolu du am bu dee dafa am ay blocage mu a loolu le dinañ ko gérer mu ne nag la xewoon ci weeru mars saa suñ waxee rek opposition bi tollam ci yooyu kàddu ne élection yi bu amul rek la amoon ca mars dina amati way wañ doon way sa mars président Macky Sall na way wowle na am daaneel te gars yi nag la amoon ca mars bu mu tax opposition bi naagu jàpp ni waxtu ne mën na am ci yéeni kaay bi di les écoles loolu di yi président Macky mu ne élection yi dana am mu bu respecté parité ab liste nga wax de liste la président Macky Sall wax mu ne boobule liste duñu ko nangu te opposition bi nan bàyyi yi ñuy def bu dee ni rek yoon àtte na loo xam ne neexu leen ñu ne dañuy taal réew mi président Macky ne loolu du am moo tax Macky tëj na wax kii ci yéeni kaay bi di Sud Quotidien élection am la wax ci yéenekaay bi di la Soleil waa Benno yi nag mu mel ne ña ngay feelu président Macky Sall ci yële kàddu ci yéenekaay bi di L'Info waa Benno tontu waa Yewwi waa Yewwi génne yëngal réew mi taxaw jàkkaarloog nguurug président Macky Sall place de l'Obélisque foo saanoon mbat mu tàkk fees dell mbooloo ma takku loolu ginnaaw kàddu yu jëf yooyu le ci yéenikaay bi di l'info waa Benno moom wax ja la ñu baaxoo ci yéenikaay bi di le quotidien Mimi Touré ak i gaayam nee nañ ay menaces ak ay saaga ñu ne loolu ay nit yu nitee duñu ko def teg ci nag loolu du doon loo xam ne dañu koy nangu maanaam dañuy lank bañ ci li leen opposition bi di woo ndaxte ay kàddu ñàkki teggin ak kàddu yoo xam ne tegul fenn ñu ne ñoom duñu ci ànd waaye daal njàngat am na ci mbiri yeewi askan wi ak ndaje man doon amal yéenikaay bi di la mandaane ginnaaw boobaa yeewi yëngalee réew mi ci juróom-ñetti fan ci weeru juin Macky Sall def na ci njàngat noonu tamit la ko waa bennoo yi defee ci yéenikaay bi di Le Quotidien ak l'info di tontu waa yeewi askan wi waa bennoo yooyu la nag mel na ay yambar fanaanoo président Macky Sall saa su dara xewee rek moom mooy génn di tontu ñi di kujjeg politique gi ci yéenikaay bi di direct news booba ñi Macky Sall jox ay ndombal tànk ñu Macky sàll dooleel ñu Macky Sall kàttanal jox leen doole ji rey di leen fay alalu réew mi ñooñu ñu Macky daal moom mooy wàcc ci foron bi rek di badax ak di daa xare bu mënti am Macky Sall moom mooy nekk ci kanam mel ne gars yi danoo tàppet Ousmane Sonko ak i APR yu doon wax naan bu gaa yi génnee ñu génn danoo woddoo làmmiñ rek bu noppee rafle jouru mars bi lewit kenn gisu leen ci mbedd mi kenn déggu leen ci dara ñoom ñëpp danoo fatu nanu ko defoon ceerug mars bu dee Bamba Fall ma doon wax naan nanu génn jàkkaarloog waa yeewi waa yeewi bu ñu fi génnee ba Ousmane Sonko ak Barthélémy Dias di jaar ca Médina boobu ana Bamba Fall waaye nag Ousmane Sonko ak Barthélémy Dias di le vrai journal ne ñaar de ay bu Sénégal teg ci ay kaani lan ku leen tuufoo toxoñu ak i gaayam Cheikh Abdou Mbacke Baara Dolli kàddu yamu yëkkati teg ko ci kaw président Macky Sall moo tax ñu woo ko ci kanamu yoon yéen i kaay bi di Les ko yoo xam ne déglu nañ ko procureur de la moom mooy ki santaane division de la cybercriminalité ngir mu jug ci mbiram Cheikh Abdou Mbacke Baara Dolli ak tontu yamu tontu ak immunité parlementaire ba mu yaakaaroon ca assemblée nationale lu waral amalu ko njariñ yéen kaay bi di Les Échos mi ngi ñu koy wax yéen i kaay bi di libération ne Cheikh Abdou Mbacke Baara Dolli ak nëbb gin ko nëbb jant bi lan moo nekk ci ginnaaw libération di ñu ko xibaar ay kàddu ya mu yëkkati kanamu yoon moom Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly ginnaaw ban ko laajee ay kàddoom yi mu yëkkati jëme ko ci président de la république fan la ko teg mu ne waxuma ci suuf dara dafa fekk ne kay ay kàddu la yëkkati rek ku ne ak ni nga ko déggee maanaam daal dafa lal ab géejjam rek ku lalli rek yaa moom bu ñuy wax nag biri géej gi suñu xel dem ci jën ministre gi ñu dénk wàllu napp bi di Alioune Ndoye bi di Le Témoin ne nappkatu Sénégal yenu téewoon ca Guinée ñoom ak seeni gaal ngir mën a dem rek la ji mbir moomi le Le Témoin ne ki di Alioune di ministre gi ñu denk wàllu napp gi benn million ak lu teg ci kopparu CFA mooy la ko yóbbuwoon ci réewum Guinée ngir mu mën a régler jafe-jafe nappkat doomu Sénégal ya fa ne ma ne un million ak lu teg ci kopparu CFA jarul woon kay di jël roppalaan ak di yàq kérosène mënoon na ko jóoni jóoni rek wala mu def ko teew mu teew